Aïcha mbégte kontante ci yenn ñuy bàyyi xel télévision Proxi TV ñoo ngi fi euh, ci Kër Massar quartier Aladji pate fekk si fi Boy Casa le grand champion kenn dootu ko présenté ci làmb mu nekk Ikiri Taïsinga moom lañu ñëw seet si day def open press bu rëy àdduna yëpp di ko xaar ci bayal ba fële ñu ñëw xool naka lay génnee dem fekk si fansam yeeg xaritam ak naka la leen di saafoo lim répété semaine bii passé yëpp tey la ñuy xam ndax fan la Boy Casa nek ñii ne nañ dégg na ñii ne yéen déggut waaye lépp dina leer sur la télévision Proxi TV ak Ndiaga Star loolu du mën a ñàkk mbokk yi ana Boy Casa le grand champion ndaysaan moo ngi nii di waaj a génn ànd ak Boy fay ndaysaan Boy fay mooy génn noonu ndaysaan Boy Casa ngi noonu la grand champion gis nga ko gaayam yëpp a ko dar mi ngi jëm fa nga xamante ni fa la géew ba nekk gis nañ fi ñoom xabaan xabaan a ngi noonu mbar mu xees xabaar la àndal mbër mu xees ak Boy Faye borom taay si nga ndeysaan loolu du mën a ñàkk mbokk yi lundi lay bëre arène nationale journée mu ñaa production mook Rambo ñoo war a daje foofu gara combat bi ay combat préliminaire yi am solo dana fa am lay doon ndeysaan Boy Kaasa ngi noonu ndeysaan maa ngi seen Adidas ikiri Père Serigne Ndiaye mi ngi noonu yor gaay gis nga ko gaay a ngi noonu di jaay ci ginnaaw laay laa xay lala gis nga ko ñoom Mbaye Sora fils de Mansour Diop ak yeneen champion yi nga xamante ni moom la Boy Casa àndal le futur champion laay laa xay lala waaye mbokk yi dara du leen ci raw ak télévision Proxi TV ma ànd ak jinne caméraman yi muy bari ndeysaan bari la àndal gis nga ko gis nga ko laay la xay la la ñoom ñaar ñu war a daje euh, ngal ban pàcc ngay pàccal Boy Gaza. waaw ndeysaan tey dañoo am contacté dañoo contaan bu baax a baax préparel suñu mbër nag muy Boy Gaza dama foor ñaar fukki ñaar fukki sabar ak ñaar loolu ngir Boy Gaza bu subaa ñu dem tas stade bi bu ko defee am ndam ñibbisi ñaar fukki sabar ak ñaar foor naa ko pour Boy Gaza rek ndax Kër Massar am ndam. mais est-ce que Rambo mi ngi yëmbal fi nga xamante ni mooy yëmbal maree moom tamit dégg naa ñi nga xamante ni ñoo koy tëggal for nañ ay sabar bari pour waajal bis bi nga xamante ni moom le 24 mai journée bu ñaa production ci arène nationale. ñooñu amuñu ay sabar man maa leen ëppale ay sabar ndax Kër Massar fii. fii la mburu muy tàngee fii la mburu muy xëy a xëy a ma supporteru Boy Kaasa waaye sama gaay Bari Sank maa lay jaawale Balde. soxna si maa ngi leen di ziar gis nañ tey toogaay bi rafet loolu ngeen sañse di waajal bis bi nga xamanteni mom la Boy Casa wara jamor la ki nga xamanteni moy Rambo. waaw ñu ngi koy paré rek ñu ngi nii di ko pare rek. dinañ koy paré waaw bu ba xam ngeen ni ki muy bëreel champion la. ah ñun ragaluñ loolu. Eh. kon dal suba ci kàttanu yalla ci altine gi di nga démé sap no man mom duma dem maa ngi ci kër gi fété wo ñaar. da nga ragal ah ah ah. ya ko feñal de mon feñal ma ko. <laughs> kon man dal fi ma talal sama micro djumuma ndeysaan kon noonu la demee Thank you.

waaw adversaire bi ñun duñ ko xam li liggéey nañu xam adversaire tant yaa ngi koy toppatoo rek mënoo tranquille li nga liggéey sa école nga mën a appliquer te moom li muy appliquer xayul ci kaw Rambo boobu mu gis bilaay walaay sa xel dal na ci moom non sama xel dal na ci moom ndax moom boo xoolee contre Eumeu Sène mu ngi doon préparé ba léegi kon dara réeru ko finition moo ko desee mu ñëw appliquer te lamb ji suba la d'ici 24 heures mënuñu fi tranquille ak bëggal fans yi ñëw daan. moo ko demee nag. nga xamante dañoo xër ci Boy Casa naka naka leen nga leen di woowee ci fair play. waaw li wax li may a wax. mooy alaaji pare nañ gees bu mbëri dajaloo def mobilisation parce que amuñu lu mbëri donte caatu yoraax mais man doomu Kër Massar laa daaw maa fi indi drapeau Kër Massar. bëre ko mu maire Moustapha Mbengue. maa maa jëloon drapeau am. noonu la demee nag. te bëgg nañ bëriwaat édition bi incha ñëw bëggale war ko waa Kër Moussar te ci kàttanu yàlla combat bi di ñëw dañ ko bëggale waa Yaraax ñëw bëggale war ko waa Kër Moussar mu gën a leer inshallah yaa ngi waajal waaw maa waajal contre Bawol contre Zal Bawol waaw mu doon mbër moo xam ne ne champion la ñu koy ñaanal jàmm rek sport moo ñu boole bu ñëwee ci kàttanu yàlla nu mu gën a gaawee rek mu defal ko affaire waaw wañ ko ginnaaw xoolaat leen inshallah jërëjëf mbokk yi kii mooy dila wax ni kon monsieur le maire mi ngi noonu Kër Massar sa Kër Massar la ñew dolel ci ki nga xamanteni moy Boy Kaasa wa ma ne ndeysaan seigne Boy Sey numéro 2 ñew jappale xaritam doomu ndayam le grand champion Boy Sey ma ngi lay ziar. ma lay fay gan jaga Star. ma ngi ci jam sant Serigne Touba bu wér a lu wara sa teewaay fii. waaw Kër Massar mo wara suñu teewaay deretu Kër Massar doomu Kër Massar mom mo xewle Boy Kaasa waaw tey Kër Massar mo ñu indi quoi ñu lay ñaar yalla may ko ndam waaw ngeen koy ñaanal yàlla di ko may ndam mais mi ngi bëre ak adversaire boo xamante amagul défaite mu am 5 combats 5 victoire ngeen war koo waajee nan. waaw Boy Casa tamit champion la Ama nga Boy Casa takkusaan yu am si làmb làmb moo tërële ma heure waroon a fekk mu passé fii bu yàgg dañuy ren di jéggi mu bëre bi 5 combats 5 victoire nangul nañ ko ko. mais le jour si dina xam matul sax njombe Kër Massar lañ dëkk ñun. ndeysaan Kër Massar nga dëkk. mais yow fan si yeeg amateur yi na mën la. waaw yaagatul ay xale yoo xam ne ñoom ñëpp ñu nekk benn ak waa Kër Massar ndax jëmm ji quoi mu nekk xale boo nga xam ne depuis mu ñëw si man nekk na xale boo nga xam ne yaru na loxoom set na bon ñu rafetlu tamit trop sa taxawaay ndax xam na ni carrément yaa ngi jàppale jeunesse su Kër Massar di la ñaanal jàmm di la ñaanal ndam.

asalaamaaleykum waa kër uh, Alaaji Paate maa ngi nuyu waa Kër Massar yëpp di nuyu tamit uh, délégué Baba Gueye mi ñu fi fekk mooy délégué de quartier Boy Casa maa ngi nuyu Boy Casa maa ngi lay nuyu di nuyu Jigo di nuyu mboolem mbër yi fi nekk yëpp xam naa leen damay bañ tudd fi turu kenn tudd ma turu keneen mu yaakaar leneen mais yéen ñëpp xam naa leen xam ngeen ma. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu délégation bi ma àndal nga xam ne le maire Ibrahima Ndiaye ak euh, le chef de cabinet Matar Mbeng ñoom ñoo ko jiite maa ngi leen nuyu bu baax ci accompagnement bi ñu def ànd ak man ma ñëw fii nag euh, di teewee open press Boy Casa ndax yaakaar naa Boy Casa bëree maire ñëw jàppale ko du la première fois te du nekk tamit la dernière fois yaakaar naa ne lépp lu muy def rek danañu dajaloo ñu ñëw sama kër ñu toog fa ñu waxtaan ak man bu ñu bokkul woon koñ bi sax dama ko war a jàppale ndax nawahji ne maire rek maire moom jeexal na wax ji ñëpp la war a jàppale te yaakaar naa mbëru Kër yi bépp bu fi bëre ñëw nga ci man wax ak man ma jàppale la li sama doole tollool loolu rek mooy sama warugar mooy sama devoir rawatina nag moom mii nga xam ne ñoo bokk koñ wax ko ma ko bay si sa wewu tànk bi ñu ñëwee wax nañ ma ay problème moom la booy di woy ne ay ticket lañ wax wax naa dinaa jënd ñaari bloc de ticket jox la ko pour boy yi dinaa jënd ñaari bloc de ticket jox la ko mais aussi dinaa la jox cent mille francs nga def euh, nga def transport nga wut ay car yoo xam ne dinañu yóbbu nit ñi donc

ñu xam ne Boy Casa ñëw na estat te Boy Casa maire mi ngi ci ginnaawam député mi ngi ci ginnaawam di ko jàppale donc incha allah te jàppale boobu danañ ko continuer di ko def inca allah donc loolu rek laa bëggoon a wax ne inca allah bu guddiwee staff bi ñëw jël si t-shirt jël ci cab jël ci billet yi jël ci kaar yi bu subaa ñu mobiliser wu dem buñ demee yàlla nañu yàlla may ndam yàlla nañu yàlla jox ndam waaw mu nekk ndamu Kër Massar ni ngeen àndee ñëpp. dafa rafet maa ngi leen di wax ngeen continuer noonu Kër Massar képp kuy bëre ngeen koy eh, def ni nekk ci wetam di ko jàppale. waaw jërëjëf boy yi jërëjëf yéen tamit waaw jërëjëf yéen tamit merci beaucoup. ndeysaan ki doon wax loolu mooy honorable député monsieur le maire monsieur Moustapha Mbeng waaye ñun duñ ko duñ ko bàyyi. duñ ko bàyyi balaa muy dem bari ñun duñ ko bàyyi balaa muy dem duñ ko bàyyi balaa muy dem ndax. Eh, maire ginnaaw bi nga yëkkatee kàddu yu rafet yi yëkkati ko ci sa njaboot ci say rakk ci say doom ñu ngi lay nuyu di la ziar gis nañ dugg si bi rafet na loolu nga ànd ak sa délégation ku gis délégation bi ñëw nga xam ni xeeboo booy Casa ndax léegi làmb ku ne xam na ni facteur de développement la affaire de gox la affaire de quartier la mbirum sot soto la dafa mel da ngaa ñëw pour la booy Casa. waaw damay sot bu baax a baax a baax ndax mënu ma nekk maire Kër ñu am mbër mu dëkk fii ñu bokkaat benn koñ teg si ba pare. mu war a bëre ji di daje keneen ma koy bàyyi muy dem foofu di am loo xam ne da koy jooy ne li manqué naa ko wala li jàppale wuñ ma ko moo tax dama ciy def sama kattan li ma wax fii 250 t-shirt yooyu ak 100 casquettes yi nga 150 casquettes yi ak euh, deux tickets yi euh, deux blocs de ticket ak 100 euh, 000 francs mu wut si lu mat ay 5 car pour mu mën a dem dama bëgg mu am une mobilisation bu ñëwee ñu xam ne Boy Casa fa mu jógee ñi ngi ci gënaawam ndax ñun amuñu lu Kër Massar té ndamu Kër Massar rek lañuy xex chaque jour donc kon nak mom bu amé ndam Kër Massar mo am ndam bu amé ndam man ma am ndam waaw. dafa melni Kër Massar am nañ sens mer bo xamanteni mën na ni dafa mbapat jaar na ci mbapat jaar na ci li nga xamanteni moy mooy ñew di ànd ak ay rakam yi nga xamanteni ñi ngi ci nawetaan ñi ngi ci mbapat yi té lolu bari na quartier yo xamanteni amuñu ko Kër Massar am ko Kër Massar buñ amé lolu naka lañ koy jëwé waaw loolu sant yàlla rek ndax xam nga man dama nekk Kër Massar nekkee fi ndaw comme ni nga ko waxee defee fi sport fubalee fi nawetaan defee fi lépp ba yàlla def tey ma nekk maire kon mënu ma seetaan jeune Kër Massar yi tey ñu toll fi ma toll woon ñoom ñu soxla man ma leen di seetaan loolu su ma ko defee sax kenn waruma ko baal looloo tax du moom kese bépp mbër buy bëree Kër Massar wax ma ko defaral naa la ay t jàppale naa la sa restauration jàppale naa la say billet jàppale naa la si say kaar loolu ñëpp laa koy defal ñoom boy sëy yi ngay gis ak ñoom caat euh, euh, euh, kii nu mu caatu yaraax ak ñoom Alassane ak boy yi fi nekk yëpp saa waalo ñoom ñëpp xam naa leen ñoom ñëpp dañuy ñëw si man ñoom ñëpp dama leen di jàppale waaw jërëjëf kon cant ak ngërëm ñeel na la ndax ku gis déplacement bi nga xamante ne def na ko nga xam ne xeebul Kër Massar kon ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér nga yeggale sab yoon jeune nga comme lutteurs yi ni ñu nekkee jeune xeeboo leen nga déplacé wu ak sa délégation ñëw fi ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ndax yaakaar naa ni mbër buy bëree gis maire bi nga xamante ne moo nekk ci koñam ak jot ni mu ñàkkee ñëw ja dooleel ko soutenir ko yaakaar naa xelam du dem ci dara lu dul ndam kon yaakaar naa daal fi mu nekk nii na mbër mi waajal te xam na am na combat. waaw waaw moom kay nee naa ko bu demee na joxe ba kanam rek fi mu toll nii ndam rek waaw ndam rek ndam rek ñun ndam lañu xam Kër Masar ndam lañu xam. waaw te xam naa ne Boy Kaza ku am jom la te xale bu yaru la xale bu baax la dégg nga li ko papaam ji wax fii léegi kon yaakaar naa ne yàlla dina ko jox ndam. waaw mais mbaa yëg nga liñ lay jëwee. léegi Kër Masar comparé ndax yow. waaw Kër Masar des na département lañ jëm. te xam nga département bi ñu jëm dafa am lu mu àndal lu ñuy wax mesure d'accompagnement mooy ay infrastructure digne de ce nom yaakaar naa ne loolu bu département bi amee boo moytuwul sax ay combat dana mës a am fii Kër Massar ndaxte danañu am suñu suñu état bopp danañ am suñu préfecture bopp danañ am suñu tribunal départemental danañ am suñu hôpital départemental maanaam département li mu àndal moo bari développement la avancement la yokkute la kon sant yàlla bu baax a baax. sant yàlla la bëri nay maire mais Kër Massar moo ci am jeune reporter de talent boo xam ne mooy njëkk a def direct ci wàllu làmb muy man mbaa nga waaw loolu xëy na maa ngi koy doog a yëg tey te loolu maa ngi ñaan yàlla loolu na sax na continuer te yàlla na leen ci yàlla defal ay ndami ndam di sant waa Proxi TV vraiment ci liggéey bu rafet bi ñuy def ci biir Kër Massar waaw di leen ñaanal yàlla na ngeen dem ba nekk télé yi gën a mag ci réew mi incha allah ayca Boy Casa le grand champion ñu ngi lay nuyu di la ziar gis nañ chorégraphie bi nga xamante ni am na fi waa Alaaji Paate ak li wër euh, Alaaji Paate yëpp ñëw nañ wuy si la gis nañ sa waa écurie Tay Shinga tamit ñëw wuy si la gis nañ honorable député monsieur le maire monsieur Moustapha Mbengue ñëw wuy si la bi nga gisee lii sa tey sa yaram lan la waaw aouzu bi mina shaytaani rajim Ndiaga Sakh maa ngi lay ziar bu baax baax di la nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di la gërëm si déplacement bi nga def waaw man lii man lii tey daf ma ëpp doole man foog ma lii na fi nekk te def ma dara loo xam ne public bi ak mbëri Kër Massar yëpp war nañu mën a ñëw fekk sama bis waaw di ñaan yalla ñëpp am taw féex ñëpp am taw mbeul bu am combat 100 pour cent Kër yalla yàlla may ndam am combat am ndam waa écrit tay nga tamit xol pigil fu mu nekk ñu def déplacement ñëw aw ma seen fay suma limé damay joom ñom ñëpp ba coach ba waaw ñom ñëpp ma ngi di ziar fans club bi tamit aw ma seen fay ndax li légui lay la ko yegg rek dama ñëw fekk fii mu fees del ñoom ñëpp ñoo organisé loolu noonu waaw di nuyu euh, monsieur le maire bu baax baax a baax a baax ndax jàpp naa si ba côté yëpp jàpp naa si di gërëm euh, chef de quartier ku ñàkk iñaan koo xam ne lépp la dafa oyof si lépp waaw di waa kër tamit aw ma seen fay ndax sonn yor mbër kër yor yombul trop di ñun ñoom ñëpp mag ak rakk gi te maa ngi nuyu bu baax a baax. di nuyu sama soxna si bu baax tamit. Boy Casa yaa ngi ci 9 combats 7 victoires 2 défaites sa adversaire am cinq combats. am cinq victoire tey moom nee na sot ak dëgër bopp ak ñàkk xam sa place moo tax nga dugg ci moom waaye boo duggee ci moom génn ci moom dana la tëw it ndax yaakaar na ni nee na ni ñuy dóoree bal mu war a dugg ci camp yi noonu la lay bulee nga dellu Kër Massar. waaw ñaaka loolu waxi dof la rek ndax man mi am neuf combats am sept victoire moom may am cinq cinq combats léegi moom mu ne ma maa jël risque bi dugg au contraire moom moo jël risque dugg si man te bu subaa bu subaa incha allah yàlla dina ate incha allah nee na Eumeu Sène mi ngay kontaagal mënatu laa may physique bi nga xamante ni moom nga bëgg ndax moom seen écurie ay xale ñoom ñoo fi nekk moom xale la nee na yow troisième âge nga bu la jàppee doo doy. waaw waaw moom lañ liggéeyante lu muy entraîné rek moom lañ liggéeyante lu muy entraîné rek ñun bu subaa lu ñuy entraîné ak lu ñuy jëf bu subaa dinañ ko wane incha allah waaw. pare nga xeex. pare nga ci bërëb pare naa si côté yëpp pare naa léegi ban appel ngay lancé su ko defee ñu bàyyi la nga dem noppalu ndax ku ne xam ni. bis bi ñëw na ba pare su ko defee nga mën ko waajal muy journée sëñ Modou moo euh, fële ca arène nationale lay amee. waaw di woo population Kër Massar yëpp Pikine bàyyi ma fenn Kër Massar bàyyi ma kenn muy soxla Grand Médine Kër Massar village alaaj Ba bu ma dëkk maa ngi ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi soxla Grand Médine bàyyi ma kenn na ñëpp wuyu ñëw fees del yi. ñu dem suba incha allah daan Rambo jël bu set ba ñibbi si waaw. ki wax loolu moom mooy Boy Casa digganteem ak Rambo la journée sëñ Modou Niala léegi yaakaar naa ne loolu lañ amoon ci question yi nga xamante ni moom lañ lay posé li ci des dañuy bàyyi ba nga dem arène nationale nga dogali sa adversaire dogali yaakaar naa ni boobu technicien yi bu ñu defee analyse rek yaakaar naa ne dinañ xam ni tey fan la ndam li jëm ndax bu ñu nee wure ba dem na këng waxi mag dem ndar càlli rek faaw jël la am te yaakaar naa doo machine waaw loolu moom dinañ xam fa la ndam di féete incha allah fii laa koy indiwaat ñu féete ko duñ ko féetewoo nii. waaw à part loolu maa ngi maa maa ngi remercier yi ñu jógee bàyyi seen ñoo fekk sama sama ku mel ni Thiat Yaraax Thiat Yaraax amul fayam déplacé na Yaraax ba fii ñëw suba open press bi. Adidas bu ndaw ak mag yëpp xabaan ñoom saawaalo Aratel Joola su ma limee ñu fi nekk damay jum ñoom am gaa yëpp a fi. Seyde wax dëgg yàlla tam ku ñàkk iñaan di ko ñaan tamit jël bu rëy combat bu rëy victoire bu rëy incha allah rabi di woo ñëpp di woo ñëpp ñoom Moussa ñëpp ku ñu mbër ak Pikine maa ngi lay ziar.